voilà ganuk euh, ñu ngi nuy auditeur Rewmi FM yëpp ganuk euh, bés bi tey jii di dalal Abdoulaye Mamadou Guissé Abdoulaye Mamadou Guissé nekk président bu parti Fulla ak Fayda nekk conseiller spécial du président du conseil économique social et environnemental Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Mamadou Guissé maa ngi lay nuyu. Euh, Ndeye Comba Moreau ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di di rafetlu rek toujours sa invitation di ko rafetlu. voilà mi ngi noonu ñu lay remercier en tout cas ci disponibilité bi euh, déjà ñu wax ci màggal Touba 2023 euh, atum ren ñu am nombre record de pèlerins ñu xayma leen ci cinq jàpp six millions euh, de talibés malgré crise économique bi nga xam ni am na mais aussi taw yu métti nga xam ne taw na ko Touba mënd bi terewul am nañ nombre record ci màggal Touba 2023 waaw ndey Kumba ni ñu koy waxee rek mooy d'abord ñu ngi sant yàlla di di julli ci yonentam bu tedd bi di ñaanal Sénégal euh, yàlla tàbbali ko ci jàmm ak salaam rek euh, di ñaanal tamit euh, sëñ Mountakha Bachir Mbacké bi nga xam ne tey moom moo nekk ci xilaafa Serigne Touba gi di xaadimu rasul bi nga xam ne kenn mënu ko laam-laamee sëñ Mountakha Bachir Mbacké ko ñaanal gudd fan wér ak yàgg fi lool di wax rek ne Euh, Ndey Kumba. Mhm. xanaa nga bañ a ñàkk xam kuy Serigne Touba kuy xaadimu rasul moo tax màggal bu jubsee wala ci biir màggal euh, doomu adama bi di laam-laame wala di am xel ñaar wala di bëgg yàq wala di bëgg indi loo xam ne ay jiixi jaaxa ci xelu doomu aadama yi parce que Sëñ Touba yàlla da ko nangul màggal gi avant ñu koy def yàlla nangul na ko donc parce que wax na ko ci xasidayam mu ne yàlla defal bés bu nekk sama dund doon doon mbégte ba sama ba bés ba bésu yomal xëyam ba bésu ba bésu dekki mm-hmm. donc kooku euh, léppam réussite la léegi nag am na ñoo xam ne xamuñu loolu euh, ndey kumba am na ñoo xam ne tey adduna bi da leen këf internet bi këf leen politique bi këf leen am na ñoo xam ne tey seen cosaan ak seen aada daf leen réer am na ñoo xam ne tey xamatuñu sax ne sénégalais lañu ndax ñoom dañu defee ne bokkuñ ci àdduna bi dañoo foog dañoo foog ne dañu leen seppi wala dañoo seppi Sénégal yóbbu ko ci beneen réew alors que Sénégal Serigne Touba Sénégal bu Alaaji Malick Sénégal bu Limaamul Mahdi Sénégal bu Boukounta Ndiassane Sénégal bu may Niass Baye Niass Sénégal boobu moom bu sa nekk Sénégal moo tax euh, may profiter occasion bi aussi di sant Idrissa Diop musicien international parce que moom euh, le cinq avril 1974 ci la woy Serigne Touba boobu musique kenn sañu la woy Serigne mu woy ci Serigne Touba donc pour te dire que yooyu yëpp ay firnde ne yoonu murit kanam rek la jëm jëm du musa jëm ginnaaw yoonu diine yoonu lislaam fii ci Sénégal tarix yi ngi fiy gis ci kanam rek la jëm du musa dellu ginnaaw donc ku ko xamul nag perte nga. voilà euh, Abdoulaye Mamadou Guissé ñu gis ni am na problème pour ñu tànn euh, candidat wu Benno Bokk Yaakaar pour élection présidentielle bu deux mille vingt quatre xaar bi yàgg na am na euh, nit yu bari yoo xam ni euh, déjà ràññee nañ seen candidature euh, c'est le cas d'Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba le Mame Boye Diao le maire de de Kolda bari na Mohamed Boun Abdallah Dionne est-ce que yow da soutenir candidature daaw Daouda Diallo wala. waaw Ndeye Comba xam nga euh, man je pense que tey li li ñu war a njëkk xalaat li ñu war a njëkk a def suñu kanam mooy le président de la république Macky Sall moom ñun dañ ko tànn ñun ay alliés bien vrai que man bokkuma benno bokkuma benno bokk yaakaar bokkuma APR yore sama parti nekk ci langue gi waaye gis na président Macky Sall li mu liggéey 2012 ba léegi. amul benn président ci ci ci Afrique bu ko li waxumal nag Sénégal ndax Macky Sall dafa jéggi dafa dépassé Senghor premier président du Sénégal Macky Sall dafa jéggi Abdou Diouf deuxième président Macky Sall dafa romb Ablaye Wade troisième président du Sénégal Macky Sall tey li mu def ci réewu Sénégal kenn defu ko te xalaatuma sax yàlla nag mun na lépp waaye xalaatuma sax nit mun ko def ci temps bu ndaw bi mu def moom ba tax na Euh, moom patrimoine la tey su ñun ñun ñu doon xeex ñun ñi nga xam ne tey di Ousmane Sonko di taal réew mi tey bi ñuy taal dëkk bi ñun dañoo xeex jàkkaarloog ak noon bi ak terroriste yi ne Macky Sall moo fi ne dem plateau télé yi toog di xeex suba ba ngoon ñun tey Macky Sall suñu patrimoine la ñun ñoo ko bokk dañ ko war a aar patrimoine boobu nag kañ la dundam di commencé dëggantaan mooy bés bu gé bu paree ci nguur gi dem Macky Sall bés bu paree ci nguur gi ba dem euh, ci la ci la ci la véritablement ci la dundam di commencé maanaam étant euh, référence su Sénégal moom mooy repère di busolu Sénégal mais Macky Sall boobu ñun ñun ñi ko ñun ñi ko toppoon di ko xeexal di ko aar mais ñun ñun tey tànnes bii muy def xam nañu kenn mënu ko def pression man maa gën a xam Macky Sall kenn mënu ko def pression ndax man xam naa ko bu baax nag dama ko pratiquer Macky kenn mënu ko def pression mais nag ñun li ñu wax tey nii tey loolu la ñu mus a wax. avant sax ñuy wax waxu candidature avant ñuy wax lenn te tey am euh, Abdoulaye Daouda Diallo mais moom dafa incarné Macky Sall doom la ci Macky Sall boo bëggee gis Macky Sall boo bëggee gis Macky Sall buy dox rek. Hmm. jëlal Amadou Ba soo bëggee gis euh, jëlal daaw euh, Daouda Diallo. Hmm. parce que daaw Daouda jàlloo Macky Sall ko yar mu nekk ci wetam. Abdoulaye Daouda Diallo moom dafay rassurer tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci APR mais aussi vote affectif. le vote asectif mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg Macky Sall ku ñëpp koo ci gis Ablaye Daouda Diallo la bëgg donc euh, man mun naa wax ne Macky Sall tey bu jàppalee ab Ablaye Daouda di xale parce que gis na ci Boun Abdallah moom aussi c'est un rassembleur mais daaw Daouda xale la te tamit am na jikko joo xam ne ñun ba yomal xëy am xam nañ ne du mus a jël Macky Sall di ko convoqué police wala tribunal wala du ko tëj ci kaso comme li am Mauritanie ak yeneen dëkk yi alors que tey keneen koo fi jël. ku dul daaw Daouda Diallo muy Amadou Ba muy keneen mais suba Macky Sall da koy convoqué kaay wuy tribunal dañu wax ne dëgg ndax Amadou Ba waa Combizir moom la ñuy wax le candidat de l'oligarchie foncière et financière oligarchie boo koy dégg ci tubaab mooy tekki mooy ay fukki nit wala juróomi nit ñoo xam ne tey ñoo ŋànk alalu Sénégal gii yi nga xam ne tey ñoo yore journal yu mag yi ñoo yore télé yu mag yi ñoo ñooy courtier yi jaay terrain yi ñooñu ñoo bëgg Amadou baa nekk seen candidat te ñun c'est pas Amadou Ba qui nous intéresse c'est Macky Sall qui nous intéresse c'est la continuité continuité Macky Sall moo ñu intéressé suba nan la ñuy am euh, Macky Sall di yeewoo këram Mermoz di doxantu ci mbedd Dakar di dem Touba di ñëw di dem Tivaouane di ñëw dem Ndiassane di ñëw te kenn du ko inquiété donc te loolu ab lay Ablaye Daouda jàlloo rek moo mën a rassurer sénégalais moom moo ñu mën a jox confiance te moom aussi. mooy ki nga xam ne tey jii lu ko mag yi liggéeyloo dina ko liggéey dina liggéeyu mag yi boo ko fekkee ci benn mën na ko yóbbu ci fukk ci tey bi ci tekk bi ci ci ci noppi ji donc mhm. te ku gore nag parce que bi i sàll gënee sonn moom mu nekk impôt domaine moom moom Abdoulaye Daouda Diallo di koy sonnal di ko xoxatal ndax Macky sàll dafa ànd ak Macky Sall ba tey jii moom du koo xam ne euh, day def entre deux tours ay milliards di combattre beneen candidat Abdoulaye Daouda Diallo mosul def loolu. te hmm. Amadou Ba gis nañ ko. dafa wor Ablaye Wade wor Moustapha Wade kon kooku ñun dalul suñu xel te kenn mënul fexe ba mu dal suñu xel te hmm. moom daaw Daouda Diallo moom moo tax ñun suñu parti ñu surseoir suñu candidature ànd ak moom parce que nag euh, ku la wóolu ne la kaay dama def la conseil social mais bu dee candidat nga wax dëgg yàlla candidature boobu da nga koy teg ci suuf hmm. jàppale ko ànd ak moom loolu la suñu bureau politique def loolu la suñu parti def moo tax tey ma ànd ak moom di liggéey moom si conseil économique social environnemental voilà Abdoulaye Mamadou gisee fi ñu toll nii ñu ñuy wooye ay détenus politiques bari nañ ñu ngi wax ay mille et quelques détenus fan aussi dégg nga société civile doon wax ni on a proposé une liste de cent personnes yoo xam ne dañ leen war a libérer gis nga am na sax prisonniers yoo xam ne jot nañ leen a bàyyi euh, ñu ngi si biti est-ce que yow d'accord nga si ñuy wax ni il faut libérer tous les détenus politiques de même que ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko. mais euh, Ndeye Fa Ndeye Kumba man d'abord man Ousmane Sonko ak ñu mu àndal ñëpp man pour man kuy wax waxu détenu politique sax euh, man je pense que da nga da nga yab Sénégalais rek ak da nga yéene woon Sénégal Sénégal dugg ci guddi gudul gudul mësa bëccëg tey Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne terroriste la Ousmane Sonko xam ñëpp xam nañu dafa jiite li ñuy wax parti boobu nga ñu disur bu ñuy wax parce que muy entreprise terroriste ay sëriñ nekk ci ay euh, woykat nekk ci ay ay même tey pouvoiru Macky Sall bii am na ñoo xam ne ci biir euh, ñoo doon financé euh, ñoo doon financé Ousmane Sonko ak entreprise am terroriste bi donc tey Ousmane Sonko mars deux mille vingt et un ba tey jii ci rey doomu doomu ci doomu aadama yi ci la nekk amul bés bu mu wootewul manifestation amul bés bu mu wootewul mortel combat amul bu bés bu mu wootewul kuy dee sa yaay jur la amul bés bu mu wootewul gàtta gàtta excusez-moi du terme euh, amul bés boo xam ne euh, Ousmane Sonko génniwul lance-pierre-am wax xale yi jël leen seen lance-pierre taal leen dëkk bi yàq leen alalu nit ñi euh, yàq leen alalu sous entreprise yi nekk Sénégal donc kooku suñ ko jàppee moom ak ay ñooñam ñu naan détenu politique lañu dama ne loolu yàpp Sénégalais yi la. Ah, mais mais mais Abdoulaye Mamadou Guissé responsabilité état si loolu lépp nag takku der yi doon euh, tiire ci askan wi ak tamit yeneen yi nga xam ne gis nañ ni aussi euh, même bu fekkee am na ay bakken yu rot aussi état bi am na si part de responsabilité. mais mais Ndeye Comba. waaw Ndeye tey yow nga yore sa télé wala sa société. ay nit jóge fële ay ay nit jóge fële Ousmane Sonko woo leen dem leen kër. kër ñoom kër kër ñoom kër ndey kumba wala kër société yi wala boo fa demee ay milliards nga fa dama leen dajji ko ay milliards nga fa ñu jub ci yow force de sec de de défense et de sécurité seen rôle mooy dissuader leen empêcher leen comme que sàcc muy dugg ci kër sàcc ñu dóor ko balu pistolet waxuma la nag ku jëpp mbooloo bu jubal ci ci magasin ne dañ koy dajji dañ koy lekk dañu jël alal bi yóbbu ko loolu euh, amul fenn fu ñuy naan état dafa dafa dóor ci kaw ay nit man mi toog sama kër yow mi toog sa kër kenn fekkula sa kër dóor la balu pistolet état fi mu fi nga naan force de répression wala di rey doom tiir ay bal réel day fekk état fekk la sa biir kër wala fekk la sa li nga moom ñëw ne la la te loolu kenn su ko gis Sénégal Sénégal euh, force de défense et de sécurité li ñu def mooy maanaam dañoo dañu gën a dooleel réew mi dañoo war a dañu gën a dooleel république bi ndax république nag mooy li boole bi yëpp mooy société bi ñu boole ñu lépp société boobu nag il faut mu am yoon am réglement mais nag ku gàtt sa gàtt sa mais buñ la buñ la buñ la defee li li nga mérito mais amul fooy jooyee waroo jooy fenn da xam ne yaa ko woote yaa woote gàtt sa gàtt sa donc yaa woote rey mortel combat yow yaa woote ne génn bàyyi leen machine yi tey nag yow yaa woote euh, ku ku dese ay juraat donc ana loolu état ana yoonu état ci loolu nañu waxante dëgg day kumba euh, tey ni ñu téyee foofu ci yi politique ñooñu naan prisonnier politique kenn du ci prisonnier politique ay terroriste lañu te ki leen jiite ni Ousmane Sonko te je pense que tey Ousmane Sonko li mu mérité rek la am li mu mérité rek la la am tey ji te man je pense bien que euh, bu toogee ñetti fan wala ñeenti fan wala weer wala at dina comprendre que ni ni ko doon bu max ci kaw réewu Sénégal parce que au lieu que nga jël Macky Sall def ko sa adversaire ak APR yow nga dem jël état Sénégal def ko sa adversaire jël état bi bëgg ko nërmeel bëgg arrivé au pouvoir comme ni ñu def Samuel Doe euh, Samuel Doe président Libéria boo xam ne dañ ko fekk biir palais génne ko luqi bët yi rendi ko dagg awraam yi xotti yërëm yi nga ne yow loolu nañu ñëw la ñuy def loolu Macky Sall. voilà kon kooku foofu ana ana. ana ana responsable am na ana état bi bi bu rey nit wala bu gi loolu kay dañ ne opposant bi moo bëggoon a rey président de la république bëgg a rey sénégalais yi bëgg rey ndaw ñi donc kon kooku il ñu arrêté ko Mmh. dernière question Abdoulaye Mamadou Guissé ñu wax ci phénomène Barça wala Barsaq ba léegi euh, gis nga malgré sensibilisation yi euh, euh, jeunes yi ñu ngi jël gaal yi di jubali Espagne parfois sax ñu dégg ay jaare nañ Nicaragua en tout cas ñu bëree bëri ñu ngi faatu ci géej gi tout le temps ñu ngi jàpp ay bateau naka nga gisee phénomène bi Sénégal di ci ñàkk ay doomam tout le temps. bon man li ma xalaat rek li ma analyse may ne bés bu nekk rek mooy jeunesse yi. dañu nekk ci gént dañoo nekk ci gént koo xam ne dañu gént bi leen di jaay la te gént boobu du dëgg maanaam bés bu ñu yeewoo bu ñu yeewoo ba toog ci li nga xam ne gént bi ñu leen doon jaay du dëgg ndax tey euh, da ngay dem France wala Italie wala Espagne wala Portugal wala Amérique wala Canada ki fay yeewoo di Sénégalais ni yow am fa ay téeméeri at di la ñaan xaalis lu mu fayee location wala lu mu lekk wala lu mu naan man day kumba fii laay toog Sénégal ñu nekk Europe di ma woo di ma ñaan xaalis ci Sénégal bi donc ñoom lañuy defe ne àjjana bu sotti la te loolu euh, li leen ci gën a poussé mooy tey opposants yi mel ni Ousmane sonk yi nga xam ne ñoom dañuy jaay gént boog la ñuy jaay xale yi ñoom am ñoom seen euh, ñoom dañoo dañoo dañoo ay milliardaire lañu te Sonko multimilliardaire la. ah pourtant Sonko day wax xale yi nañ toog fii ci réew mi ñu liggéey. encouragé wu kenn jël daal non musul musul musul wax xale yi nañ toog Sonko Sonko ni muy xale yi. Euh, euh, suba ah, mortel combat génn mais lii lii nga bëgg a dugal Sonko nag je pense que du responsabilité am parce que euh, su fekkee jeunes yi dañoo désespéré jël gaal yi di dem c'est parce que nguur gi dafa lajj ci wàllum politique de l'emploi bi mu teg mais ça n'a rien à voir ak Ousmane Sonko je pense bien mais pourquoi léegi nag léegi nag ñoom lu tax ñoom ñuy jël responsabilité dem gaal yi di ko teg ci ndodd président Macky Sall Macky àll le président de la République moom Euh, mënul réussir fi nga xam ne yàlla rek moo fi mën a réussir réussir na si lu bëri te kenn du ko wax kenn du wax ne président Macky Sall réussir na fii réussir na fële réussir na fële doo mës a dégg Ousmane Sonko wax ko doo ko dégg keneen wax ko alors que ñooñu ñoo la gën a xam ne tey àdduna bi nu mu tëddee ndey kumba adduna bi yëpp moo tëradi ñëpp coono ji fépp la nekk moo tax ma ne la ñoom opposant yi nga jiital ci Ousmane Sonko ñooy jaay ndaw yi ay gént yoo xam n amul ñu mu ñoo leen yaay tey suba Sénégal mun na mel nii mun na mel nii alors que développement dañ koy liggéey ci ay at tey jeunesse bi ci boppam dafa war a nekk jeunesse bu créative maanaam bi bi bu koo xam ne bu xarañ la ndax tey Amérique France États-Unis Canada ñan ñoo ko defar ñu dëkk seen dëkk ba ñoo ko defar donc xëy na am na nag loo xam ne war nañ ko yokk ci réew Sénégal bi te loolu dina ñëw mais munoo yow suba teel rek am Sénégal mel ni mel ni mel ni àjjana mënut a nekk. je pense que en douze ans ce que le président Macky Sall li mu def si fukki at ak ñaar je pense que buñ ko defaatee yeneen fukki at man je pense que Sénégal dootuñu wax waxu immigration clandestine ñu wax di ci et puis ñu am opposition bu responsable ndey kumba une opposition bu responsable lul bi nga xam ne day day day day day wax loo xam ne amul ñu ko ci seetaan di dikk loo xam ne mënu ko def Senghor nekk na fi Abdou Diouf nekk na fi Abdoulaye Wade nekk na fi mais ñoom ñëpp li ñu doon wax tey ñëpp gis nañu kenn defu ci li nga doon wax kenn loolu rek war na yee war na yee adduna war nañu yee Sénégalais yi ñun. donc tey président bu fi toog bu dee mu ngi liggéey nañ ko jàppale su liggéeyul nag ñu xam ne ci liggéeyul te Macky Sall nag loolu dalu ko ñàkk liggéey dalu ko sérieusement voilà merci beaucoup Abdoulaye Mamadou gisee ñu ngi lay remercier en tout cas bu baax a baax ci disponibilité bi. jërëjëf Ndeye Comba jërëjëf.